wasallim mbokk yi ginnaaw bi ñu sante borom bi subhaanahu wa taala du julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ñaanal àdduna bépp jàmm di ñëwaat ci seen eh, ñettaayu eh, jotaay bi nga ak yéen biñ leen jagleel ci eh, weeru koor mu nekk laayantey biir suñu diggante ak yéen ndax jullit ak moroomi jullitam waare am fi waaye fàttali moom moo fi am comme ni borom bi subhaanahu wa taala waxee ni fa zakkir innama anta muzakkir lasta alayhim bi musaytir tey bi ñu ñëwee nag ci wàllum koor ñu ngi si jël euh, ñi nga xam ne dañoo am ngànt si koor euh, ndax koor euh, du ñëpp ñoo ko mën waaye am na si ñoo xam ne seen koor pour ñu def ko day jafe lool te diine am lu mu leen teggil waaye tamit am loo xam tamit da leen ko may kon bu ñu xoolee ñi am ngànt si koor dafa nekk juróom kon juróom yi bu si njëkk mooy nit ki nga xam ne dafa nekk si tukki bi koy taxa mën a wàññi julli comme ñu ne la da ngay tukki mais tukki bi nag bii tax ñu mën la may lii tax nga mën a wàññi junni kon nag boo xoolee foofu borom xam-xam yi am nañ ci uute am nañu indi ay soixante et quelque mais am nañu indi quatre-vingt-quatre gën kii kilomètre waaye nag tukki boobu tamit pour ñu leeral ko tamit ñu bañ ko tëb day fekk nekkoo si dëkk boobu ñeenti fan bu fekkee ni dëkk ba di fa am ñeenti fan lu mu néew néew kon yow doo wàññi dangay woor wa ilaa tukki boobu fekk sa soxna dafaa dafaa nekk da ngay woor wa ilaa tukki boobu da fa am këyit maanaam nga jógee voyage dem benn dëkk muy Europe ba ku ma doon nga am këyit si dëkk boobu kon boobu it fi nga bokk kon boobaa du la tere woor dangay woor ngir nit ñi ñu xam ni tukki boobu du damay tukki dem Cees ak tegg lañ ma ko déedéet dañ koy leeral ba mu leer ba kenn ku képp kuy dégg mu xam ni nii la ko ak nii ak nii la ko diina tegee beneen bi mooy ku feebar ba mënatul foofu yi dañuy dañuy xool ki feebar ba mënatul moom bu fekkee ni ci feebaram bi yaakaar na ni dina wér moom day bàyyi bu koor gi jeexee mu fay bu fekkee ni yaakaar na ni wax nañ ko ni feebar bi dina wér boobaa ci ko feebar bi boobaa day fay mais bu fekkee feebar bu dul wér la nag moom day joxe mudd maanaam bu dul bis benn bis bu nekk ci weeru koor da koy joxe mudd mudd nag sa ñaari loxo nga koy nattee ba mu feex dell ci ñam bu ñuy dundee moom ngay joxe mu remplacer ñeel bépp bis boo xam ne wooroo ko kon feebaroo rek nga ne yàlla teggil na la ko déedéet kon dafa am loo xam ne moom nga moom lañ koy remplacer pour que ku feebar te mu xam ni woor moom jul kenn ñetteel bi mooy ki nga xam ne dafa màgget ki màgget ba mënatul kooku it day joxe ñam kooku tamit mayuñu ko donte wóorul moom it mudd lay joxe day joxe ñam mu nekk ñett yooyu ñeenteel bi nag mooy ki xam ne dafa ëmb te ragal loraange si biiram kooku it day joxe ñam waaye ngir yëpp ànduñu si am na si ngiir yoo xam ne ñoom ànduñu si mu joxe waaye am na si ngiir yoo xam ne ànd nañ si mu joxe fekkee nit ki dafa war na lor dafa ëmb waaye mi ngi dépendre si kii seetaan bu fekkee ne yow ngir bi nga xam ne ñoom ànduñu si fi nga bokk kooku yow nga topp loolu bu fekkee ni ngir bi nga xam ne dañoo wax ni ku ëmb na joxe euh, euh, mudd nga ànd kon na nga joxe ndax ngir yi dafay nekk loolu mi ngi dépendre si nit ki nga xam ne mi ngi may seetaan di ma déglu mu xam ne dañoo jël mbir mi ñu teg ko ci diggante yi ñu ci ànd ak ñi ci àndul beneen bi nag mooy nit kuy nàmpal te amul keneen ku ko mën a nàmpalal bu fekkee ni moom day nàmpal rek waaye amul keneen ku ko mën a nàmpalal te ragal na ci euh, nàmpal boobu lo mu woo mu jure ko loraange boobaa moom loolu moom far fosu ngir yëpp ànd nañ si nii dafa war a joxe dafa war a joxe ñam ñii mooy ñi am ngànt ci koor ndaxte euh, nit du ko tànnal boppam bu fekkee feebar ni dafa feebar damaa feebar ak mënuma woor déedéet am na ñuy saytu yow sa feebar mooy médecin yi ñoom ñooy dem saytu sa feebar ba xam ba xam yi nga demaat si beneen médecin bañ bañ nangul la ni yow yow kat mënoo woor su ko defee nga doog a tënku si lool waaye nag bul ko def ngir sa coobare bopp soo ko defee boo si woo boo si woorul boobaa kafaara lay doon te kafaara benn mooy da ngay goreel jaam baa nga woor ñaari weer yi tegaloo wa ilaa nga jox juróom-benn fukki miskin nga jox leen nga jox leen ñam kon loolu mooy kafaara boobaa. kon mbokk yi euh, bii lañ leen indi laatoon euh, si li nga xam ne moom mooy ñi am ngànt si koor leeral ko kon lépp lu fi dëng ñu xam ne ñun la lu fi jub ñu xam ne borom bi subxanahu wa moo jubal lépp kon ñu ngi leen joxaat dig daje ci su suñu ñeenteel ba juróomeelu jotaay bi kon xayran la naa wa saran la ahdaana alhamdulilahi rabbil alamin asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.